mbokk yi ni bàyyi xel fan mën a nekk ci àdduna bi moo xam ñi nekk ci réew mi wala ñu nekk bitim réew ñoo ngi leen di waxaati assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu te yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di ndokkeel ak di leen jaajëfal bu baax a baax ci topp gi ngeen topp di woy di wax ne am ñu yaakaar ne yéen a ngi ciy jariñu yow mi nga xam ne yaa mujjee ñëw tey bàyyi xel sunuy vidéo ñi nga lay wax bu fekkee ne abonné go nga abonné te sem vidéo bi mbokk yi tey nag dañ leen a fas yéene indil benn secret boo xam ne secret bu ama am solo la muy secret lixlaas waaye nag tey dañ leen koy indil ci beneen fànn muy fànn boo xam ne wàllu noob lay doon lixlaas nag di secret boo xam ne secret bu yéeme la te gaaw lool ci tàggat doomu aadama tey ñu ñun ci yoon woo xam ne képp koo xam ne yitteel na la nii ñu koy waxe boo ko defee rek incha allahu rabbi lay aajo ja suñu borom dina ko faj incha allahu rabbi waaye nag bala ñuy gën a sori dañ leen dogal ngant di wax ne bépp noob boo xam ne dugal nañ ko ngal la ñu ngi leen di ñaan bu leen ko def ci lu dul aajo ñaan gi nag dara waralu ko lu di di di ragal lor ci yéen lor gi nga xam ne moom la ñuy ragal mooy noob képp koo xam ne danga koy def ci lu dul aajo na la wóor na yaa ngi ci dansé boo xam ne xamoo ko def ci lu dul aajo nag mooy ñu wax la noob gi nga gis ko def ko te ki nga koy def ay caaxaan kese moo tax nga bëgg kaa def ak moom loolu de mbokk yi bokk na ci li nga xam ne dina ko waral dina tëj nit ki ba nga xam ne lii wàllu am-amam. dafay nuru lu gàtt lol wala mu japp ne dañ ka liggéey ba munta am dara fekk na lol rek moy li ko waral bu fekke ne nin nga ko xamne <clears throat> ku woyof bop nga man na la dikki ak gatt fan motax nañ ko moytu bu baax baax ñu gëna sor rek dañuy def fatale ci suñu mbokk yi nga xamne ñoo mujjé ñëw ko xamne abonné go ci sen bi nga abonné té sen vidéo bi partage ko say xarit mu gëna yaatu bokku yi nga xamne dañu bëgg def lu listixaar dañu def listixaar à distance fo mëna nek ci aduna bi mo xam nga nek ci réew mi wala nga nek bitim réew ta bëgg ku lay defal man nga ñu contacter ci numéro bi insha allah rabbi <coughs> des na la defal listixaar gu leer nañ <coughs> bu fekkee ne mbokk yi nga xam ne dañoo yittewoo ci garab bi musxam yi muy garab bi kattan yi disponible na jamono ji ñu wax ak yéen ku yittewoo rek man nga ñu contacter ci même numéro bi. waa mbokk yi tey secret bi nga xam ne moom lañ leen indil mooy lixlaas bi qul huwa allahu ahad allahu samadu lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad waaye nag lixlaas bi ñu am ni ñu ko bindee comme nii nga ko gisee nii rek noon lañ ko bindee waaye boo bindee lixlaas bi ci suuf bind nañ samadu yaatal soot gi bind góor ak jigéen ci biir nii ñu ko bindee ñoom ñu jàkkaarloo nag booy noob nit nii nga koy defee boo ko bindee nii ba pare na nga ci fexee bind ñett benn bi na ko boole ak soble doomu soble nga suul ko béréb boo xam ne dafay tooy toujours benn bi na nga ko def téerandi gi nga takk ko benn bi na nga jéem fexe ba dem ci kaw garab goo xamante ni dafay am ngelaw nga fexe ba takk ko fa waaye heure boo xëyee nag na nga jéem a fexe ba wérdu lixlaas muy saar yu ba mu jeex sans os muy xadadu kaaf yi bono noppee nga ñaan ci say soxla incha allahu rabbi suñ borom dina mu ñaan nga ci na mu gën a kon secret bi moy bi nga xamné tay mom la leen indiloon di leen wax ngal la nak bu leen ko def mukk ci luddul aajo muy ko xamné dafa am jabar ak jëkkër li ñi am jafe-jafe dafa bari wala ko xamné dañoo nekk ñom ñaar tamuy logar ak taggo am ci seen muka mu ko def ngir ab sey am seen diggante boobaa man nga ka def wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf